abanana kataptu sukra lama khadara jawtu bi kauni sahih asakara asakara Gurimi Gurimi kana sakara wa aradi minu fidarina neena wajjahtu wajhiya fi sore nabi sanadi lil akram في الدارين أنا لرجوت بالخوف تعالى سكره أملي ورفع اليوم Yeah. bamba nee na rajawtu an yamuxo salaati jumlatiha wa tasxiila Amen. neena inni o xawaati mu xool fil bari muqtariban yaasal jallo wa jambara inni o xawaati mu xool fil bari fil bari muqtariban fil bari Mbàkke تجد إني أخاتمها في البر مقتربا لم يزل جل وجبارا تحتني حبيبي على حبلي لا اله الا الله ادن كل من بارا حبيبي على حبلي انا للقرب ادن كل من بارا فرحتني ربي بالمن على حبلي أراد لا إله إلا الله كل من بارا بالآلاء حبلي أراد للبر ردني كل من التسليم بالكرم والبواسد ودار بحي أبكارا على النبي صلي تسليم بتسليم بالكرم كرم كرم بالكرم وسدوا في كل فتن بعد ma nekk jig taxaw màggal Seydina Mohamed yàlla boo dugg bàmmeel rek jig taxaw màggal Seydina Mohamed yàlla boo fàttali rek jig la taxaw màggal Seydina Mohamed ma tawa sabrun kulla Saburul, saburul, saburul وجه بات الله بات وكل صبر الكل ساعات ما توكل صبر الكل ساعات بات وكل صبر صبر الكل ساعات صبر صبر صبر الكل والخمما هو الإمام إمام إمام إمام إمام يقتل في الجوال ينن يوم القيامة تأتي رسل خواتبة والأنبياء والكل خد واكما ati rusuli ati rusuli xaatibatan wala liyaa illahu wal kullu su boobaa yaqoon kulluhum nafsi wa ahmadu la yaqulu ummati yaraw ghayra marra imaa nafsi

داود ليلة الأزرع وجاوزه أتاتنا باتقاء من سماء لسماء أين أين أين أين أين والأنفا كما كفاني ما يرضى منكورا ينال صلى عليه ما تسليم خايدني بسكري واسم بالجنة مختكما ما تسليم خايدني خايدني خايدني جدا في لي واسا أنا الأمر خرد إلى يسابين وإليك تتقلب وخطاتا ku jóg taxaw ca kaw màggal Sëñ Tuubaa yàlla boo gàttu fan ku jóg taxaw ca kaw delloo njukkal sëñ neena aslamtu lillah aslamtu lillah aslamtu lillah aslamtu lillah aslamtu lillah محمد ku ko yàlla man loolu lamb la dee Serigne Touba jox ko si njàpp mbay ku ko jox adde Serigne Saliou Mbaye Serigne Fall yàlla nga tàggoog ñàkk aywa borom Touba yaa ma jaaral di wër di wër bëreewi gànnaar ma jalas balla borom Touba ma jaaral di wër di wër di wër di wër di wër di wër bay Sëriñ Saaliw awaka dana la dana la alkuray sandarma man nga ma la ala halma awaka dana la magal leen Sëriñ Saaliw Sëriñ Saaliw Mbàkke mulkoo malakoo malakoo lay fanaane maa jaal malaaka hi jabaroo malakoo malakoo malakoo Musa taway de nga dëkkal tawal ha xalima xalima xalima xalima bopp dugg si baa. ma ne ku ci taxaw màggal sëñ Fall yàlla nga am bopp dugg sëñ Fallu ba sëñ Fall. koo xam ne da nga am bopp dugg sëñ Fall di ko taxaw màggal ko jaar si baa. mayoon naa ko ca at yee ñu naa ma yaa daan. yaa daan tey ma dellu wayaat ko ba way wi saa ma waati musoobe diriiri diiwaan diiwaan upp na lambu ji sa fallu moo di ñëw di saf weer. saf weer lu ne tawala sëñ Fallu cër ba daa foor. man ka tuut bi aw rajab la ñëw. ana sa tey sëriñ Fallu. sëñ Fallu sëñ Fallu sëñ Fallu. guddi gee jëla yonent demoon tarax ma. guddi googa la sëñ Fallu ñëw di daanaa. fallu moom du alaaji fallilu may ka bekk tuukar kar gu xay tataalu fallilu daldi daldi ana soppey alaaji fallilu mooy ka bekk suukar kar gu xay tataalu daa di jaxle sëñ fallu moom du moola mooy ka bekk suukar kar gu xay tataalu daa di jaxle sëñ fallu moom du moola fallu mat maam fatwa sibdu Cheikh Ibrahima ak ngiran ah, ci kërdaam tay ma wax la nag ko doon fallu mat maam kërdaam sibdu Cheikh Ibrahima ak ngiran ci kërdaam Cheikh Abol Baraka mooy ka doon du baayam baayam Cheikh Ibrahima Fall mamam jamono yaaram ku tay Fall defal di ci sawru Fall sawru Fall sawru Fall sa jaboo pas-pasam ba mu am noppi rek la lambo seex aboy sunu tiitër di gor la lambo yàlla sax dinu jiite ci barke baayam yàlla sax dinu jiite ci barke baayam yàlla na sax jiite ana sa tey sëñ Muntaxa yàlla na jiite ana sa tey sëñ Muntaxa yàlla na jiite ci barke baayam moom njaboot sa jéngi sopp ma ni koo xam ne ànd nga ak Serigne Mountakha sunu xalifa bi jug leen màggal sunu Mountakha jar na ko ko ànd ak sunu xalifa bi jug leen màggal sunu Mountakha jar na amin ci barke tay bata ki Tuuba ak barke jol mata borom Tuuba amin ci barke tay bata jox na Serigne Bamba ndam ndam ja tas na tas sant yàlla di ba koonu awoon baako diina jox na Serigne ba wara kore naa wane na ko sant yàlla di ba koonu war ndam awoon baako diina jox na Serigne Bamba ndam ndam ja tas na tas diina jox na Serigne Bamba ndam ndam ja tas na tas diina jox na Serigne Bamba ndam ndam ja tas na tas diina jox na Serigne bamba dam diina jox na sëriñ bamba dam sant yàlla ba koolu ordam fa onu ba ma nekk a taxaw màggal seexul xalim yàlla nga fekk a Tuubaa gi téeméer at koo xam ne ba nga koo fekk te doo faatu jugal taxaw màggal sëñ Tuubaa jar na ko diina ji amutoon waaju mel ni Ahmadu Bamba ku ni mel ndax jëmal góor du ko ku sopp sa njeex ndigal seen sa loxo ñu magal akaba akaba tataba taya ilaay tiite gi dafara pontilim tax ko taxee ñoom xat ñag as bari xaaxam sëriñ day di ko xàkk dina yee amutoon maa ci wel amaana dootu am ku sopp sa cer no jang defal nii sa loxo jiite ji dafara pontilim taxu taxee ñoon ki ko fàkk diina ji dafara pontilim taxu taxee ñoon ku sopp sa cer na jeg defal nii sa lax say xubam akuraatum kemam doom la di seeni yàlla ki ko jiital ku koy bañ dana lakk dana dana lakk ku dana lak ku bay bamba dana lak say ku bamba kuraatum kemam la di fee yàlla ki ko jiital koy bañ dana lak seexu bamba bamba dana lak ku bay bamba dana lak ku bay bamba dana lak bamba rek ka dem del si waat waa ji ko mooy nag ak fa la di taat ab ya lekk moom rek ka dem dellu ci waat bu sopp sa jeex ndigal seen sa loxo ja kaw ndam yi fii la commencé ni ndar ahmadu moo bañoon si ñëwoon yàlla buur be ki ñu sàkk li fii la commencé ni daaw ahmadu moo bañoon si ñëwoon yàlla buur be ko sàkk biroon ndar dafa kàbbar ca kaw julli ba sëlmal ka ko woon fa ndar dat dafa ka ko woon daan ne ko jàkkee naan nar nga borom dar du yow laay bi la sang boo ko moom tay te moo la moom naa ñëpp nit ak naa ko nar nga ku bëgg sang taxaa yaa ngi fi jógal taxaw ca kaw màggal sunu xalifa bi jar na ko de ñëpp nit ak sëñ Bamba fa daar la jekku ci Bamba daan na fa nar daan nga bokk daan na fa géewal tër na lan nga fa maay Bamba ma yëpp la jekku Bamba daan na fa nar daan nga bokk daan na fa géewal ci Bamba daan na fa nar daan nga bokk daan na fa géewal ci Bamba daan na fa nar daan nga bokk daan na fa géewal Bamba daan na fa nar daan nga bokk daan na fa géewal Bamba daan na fa nar Cheikh Ismaïla Diouf baax na Bamba daan na nooru laay bamba daan na fa nar Cheikh Ismaïla Diouf baax tërtanor yoxo mayom babam yëpp lañee ko waaju koy tëkkaleeg ab sëriñ xanaa dafa reebu ndax sëriñ am na ko tayul walaay tayul ko waaju koy tëkkaleeg xanaa xanaa xanaa jekku la jekko sant yàlla di bàkkoonu wa fawunu ba sant yàlla di bàkkoonu bàkku leen sëñ Bamba am na ndam sant yàlla di bàkkoonu bàkku leen sëñ Bamba fawunu ba sant yàlla di bàkkoonu bàkku leen sëñ Bamba am na ndam sant yàlla di bàkkoonu fawunu ba sant yàlla gañi bàkku leen sëñ Bamba am na ndam sant yàlla di bakkoon ku leen si maam nu doon sant yàlla di bakkoon daan leen tabakuwul sant yàlla di bakkoon daan leen tabakuwul sant yàlla Ahmadu Mbakke daan leen tabakuwul sant yàlla di bakkoon daan leen tabakuwul sant yàlla Ahmadu Mbakke na leen tabakkul sant yàlla tabakkul sant yàlla waa tawfiix am ngeen ndam sant yàlla tabakkul waa tawfiix fa unu ba ana waa tawfiix di leen màggal sëñ Tuba ana waa tawfiix di leen màggal képp ku nekk tawfiix di nga taxaw màggal ko jaar na ko waa tawfiix am ngeen ndam sant yàlla tabakkul waa tawfiix am ngeen ndam sant yàlla tabakkul waa na jéggi taw feex lañ jug màggal Serigne Touba na ko kuy jéggi taw feex jug lañ màggal Serigne jar na ko waaye waa taw feex am gëndam sant yàlla am gëndam waa taw feex am gëndam sant yàlla waa taw feex am gëndam ak gëndal waa tawfeex ak gëndal sant yàlla jéegi tawfeex ak gëndal sant yàlla ak gëndal waa tawfeex ak gëndal sant yàlla di ba ko jéegi tawfeex sant yàlla am ngeen ndam waa tawfeex am ngeen ndam sant yàlla di ba ko léegi tawfeex am ngeen ndam sant yàlla am ngeen ndam waa tawfeex am ngeen ndam sant yàlla di ba ko léegi tawfeex am ngeen ndam sant yàlla di ba ko noonu tawfeex am ngeen ndam sant yàlla di ba ko wara tawfeex am ngeen ndam sant yàlla di ba ko waa tawfeex sant yàlla di bakkoon bakkoonu war naa faw na bakkoon bamba dundoon géej ndax géej day la may suñ bamba yi borom géej mool yépp lay napal bakke bamba dundoon géej man ana bay faal yi bay faal yi ku bay faal defal nii ci sawru faal bamba dundoon géej ndax géej day la may suñ bamba yi borom géej bool yépp lay napal Mbakke Mamadu doon géey dëgg la ba may ki bay faal defal nii ci sawru faal Bamba du doon géej ndax géej day labal si babay borom géej moon yépp lay napal Mbakke Bamba du doon géej labal elabal babay borom moon yépp lay napal ku taxañ yam ci usay rëbbi yam ci ponkalu ñal ba yo boo taxaw maam baay ba mooy cey cey kii taxani yam ci usay rëbbi yam ci ponkalu ñal ba yo boo taxaw maam baay ba mooy cey cey kuy taxani yam ci usay rëbbi yam ci ponkalu ñal ba yoboo taxaw tëni maam ba ma mooy cey cey ku bëgg a fekk dewen dugal taxaw ca kaw du mangal Seex Ismaayla Juuf Nooru Laay maam Bamba mooy cey kay booya boo taxaw te ni cey maam Bamba mooy cey ku bëgg Sëriñ Bamba loxo ku bëgg Sëriñ Bamba loxo booya boo taxaw te ni cey maam Bamba mooy cey cey booya boo taxaw te ni cey maam Bamba mooy cey cey booya boo taxaw te ni cey maam Bamba mooy cey cey booya boo taxaw cey cey cey cey cey booya boo taxaw te ni cey maam maam ba mooy cey cey booya boo taxaw cey cey cey cey booya boo taxaw cey cey maam maam ba mooy cey cey booya boo taxaw tani cey maam maam ba mooy cey cey sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey